li ñuy njëkk a def mooy ñaan suñu boroom mu wàcce saafara su faj jàngoro ji wàcceel ñu it ay xéewal am koom mu ñu tàggaleek jafe-jafe yi ak ñàkk gi wàcce aussi bépp xeetu njariñ buy dàq lor loolu ñun ñépp ñu maase ci ku nekk ci li nga gëm ak li nga yaakaar nga dellu ci ñaan yàlla pour mu musal ñu ci jàngoro bi li nga xam ni lii président de la république def na ko muy woo ñëpp askan wi yëpp yamul rekk ci lider politique puisque jàngoro bi moom ñëpp la concerné xeex bi ñëpp la concerné te jàngoro bi daf cee am loo xam ni lii lu lu simple la mooy amuñu vaccin amuñu garabam te it jàngoro bi amul tànk amul laaf nit moo koy jox nit donc sorewante gis ngeen biñu biñu ñëwé dañoo dandanté puisque loolu la situation bi laaj Mesure yi ñuy jël yépp pour fagarou la pour fegu la avant ñuy obligé di faju ndax système de santé bi même bu doon système de santé bu baax ak pays développé bu maladie yi rek jaaxle dal di tàbbi gis ngeen situation bi am Italie donc ñun ñëpp ñoo wara mobiliser nek benn jëm pour xex jangoro bi di ñaan Yalla mu musal ñu ci di euh, xalaat bu baax tam suñu mbokk yi nga xamni ni ñoo ci diaspora bi di bekk ci li nga xamni ni président na len xel ci biir programme bi puisque ñom ñoo daan liggéey di yónnee Sénégal tay ñu nekk ci confinement nekk ci ay jafe-jafe yu metti donc ñoom tamit jar nañu bàyyi xel ci jumtukaay yi nga xam ni ñoo ngi koy fexe pour xeex euh, jàngoro bi di ñaan ñëpp ñu tënku ci tegtal yi metti na puisque ñun suñu aada ak suñu culture li ñu xam mooy saafonte dem dikk ku nekk di di di jàppale sa morom ci jamono bu nekk ñuy jaxasoo di daje wante nag li suñu borom moko ko moo ko ñun ñëpp ñu fexé rek ba top tegtal yi nga xamni ni docteur yi joxé joxé nañ ko di euh, gërëm ñëpp di gërëm personnel de santé bi di leen gërëm yeen journalistes yi maa ngi suivre euh, plateau yëpp vraiment ñëpp mobilisé mobiliser donc euh, di di bég bu baax ci li nga xam ni moo am ci peuple sénégalais ñëpp bokk ndey bokk bàyyi pour xeex jàngoro bi